marasmas sëriñ bamba du mappandoo du seen maas na ngeen déglu mi borom arasmas pirom jës bu balam wax ko njambaas ba xam ni sëriñ bamba laa di rambaas jaraway mbàkke moo yayoo dama yàgg ci saxaaram talaaju may paas madda ilaya waasiu munfaridu naylan bi fi abadin anfaridu madda ilaya waasiu munfaridu naylan bi fi abadin anfaridu Sëriñ Tuubaa yaa si gildeer bu ñuul bëri yëpp bëri yëpp ñu ñee ci am ginnaam yow sëriñ bi Sëriñ Tuubaa yaa si gildeer bu ñuul bëri yëpp ñu ñee ci am ginnaam yow sëriñ bi sëriñ Tuubaa tax kenn jaayu nu nuy jàppe ay jaam ñuy jaamu keneen keneen ku borom bi maami sëriñ Moodu Maamun Mbàkke yaa si dér bu ñuul bëri yëpp ñu ñee ba noo am indépendance suñu ndaje mi tey nag mooy li ñu daan def bu waxtu wi jotee mooy Sénégal dafa jëm ci feet de l'indépendance ñu doon ko def at mu jot kat avril feet gi nag Sénégalais yi yëpp ñoo ko bokk waaye ñun ñu daan def suñu eggee ci bés ba ba kenn ku nekk jot sa wàll ci feet gi man ak ñi ma bokkal pas-pas bi dañ daan jël suñu wàll delloo ci njukkeel Serigne Touba loolu nag. Euh, dama jàpp ne lu war la ndax sëriñ bi euh, du ñu wax ñun ne moo jox Séné Sénégal indépendance ndax loolu du ñun ñoo ko war a wax euh, waaye nag joué na ci rôle boo xam ne nii rëy na ba tax na jàpp nañ ne luñ ko war a delloo njukkal la ba tax na nag. Euh, ñu gëm ni li ñu am bu nu ko saytoo ñoŋal ko internationaliser ko euh, yaakaar naa ne dinañu dinañ ci dinañ dinañ danañ jariñoo Sénégal danañ jariñoo Serigne tubaa ci biir réew waaye dinañ ko jariñoo ci bitim réew ndax kenn ku ne xam na ne sëriñ bi li tax ñi jële ko fii yóbbu ko tubaab yi dañoo bëggoon lu mu doon bañ di ko digal lu muy bañ di ko tere lu muy def ñu tuumaal ko ne dafay jihaad mu ne la ne waaw inni ujaahidu bil hulum bi obi toqa damay jihaad waaye nag man euh, forme forme de jihaad bi ma yor wuute na ak bi ngeen may reproché man damay jihaad ci xam-xam ak ragal yàlla yemuñ ca loolu waaye ñu tuumaal ko trouble à l'ordre public yooyu lañ dajale boole ko exilé ko lu mat juróom-ñaari at ak lu topp bi ñu ko yóbboo eh, ba ni mu dellusee mosuñu koo digal lu mu def waaye mosuñu koo teree lu mu bàyyi mu dellusi nag fii ci réew mi eh, indaale ndam lu rëy rëy kon nag dañoo jàpp ne Serigne Touba dañu ko war a delloo njukkal kon nag feet gi senegal yépp ñoo ko bokk waaye nag ñun suñu wàll lañuy fas yéene jël sant ci Serigne Touba sargal ci Serigne Touba. lii moo waral lool bis bi nag daanañ def su accès ñu xool ci ñi nga xam ne ay sunuy kilifa lañ di ay royuwaay ci yoon wi ñu jël ci kenn def ko muy parrain jël ci soxna yi kenn def ko muy marraine jël ci sunuy kilifa kenn def ko muy invité d'honneur ba taxoon moo waraloon ñu tuddee woon ko fi suñ Cheikh aw Balla digganteem ak maam Cheikh Anta tuddee ko fi suñ Modou Faati Xari digganteem ak Daaru Salaam tuddee ko fi suñ suñ Alaaji Bara digganteem ak Daaru Salaam ak Sëñ Fàllu tudde ko euh, Sëriñ Saam Dula tudde ko ñu baree bare bare ñi dem nag ba jamono ji ñu toll ñu toll toll nag ci ñu war koo tudde ci ñi nga xam ne waruñoo xaar ba yeneen jamono dañoo war a xaar ndax dañoo jàpp ne nit boo koy sargal danga koy def ci ak dundam ñu gis fi jamono ji ñu toll am nañ suñuy kilifa yoo xam ne nii ñu ñu war a euh, jàngal génération future ñu xam jëmm yooyu ne jëmm yu matarooy lan looloo tax nag ñu jëloon ko demee ne sëriñ euh, Galas Maane Mbàkke euh, di koo xam ne nii mbokk la ndax euh, sëñ Abdou Mbàkke mi ko jur baayam moo woy juru soxna soxna Buri Kànni mi jur sëñ Mudu Maamun ñoo bokk baay kon sëñ Fallou Maane loolu moo tax ñu def ko parrain bi jugee ci loolu soxna Moomi Kebe di doomi alaaji njugo kebe ñëpp xam ko alaaji njugo kebe kenn du ko laajte ci yoonu murit ndax daf fee jëf jëf bu rëy rëy moom nag euh, mosuma gisee ak moom loolu it xam naa dinaa ko leeral mosuma gisee ak moom kon li tax ñu tuddee ko ko yaakaar naa benn yoon lan jo jokkoo téléphone te mu ngi jóge ci intermédiaire Modou Mamoun Lo Gaydel moo ma ko mas a jox téléphone ñu waxtaan euh, kon tudde gi ñu ko tudde soxlawul sax ñun ñuy dem ci moom ngir mu nuru ne dañ ko ko tudde ngir lii walla ngir laa waaye dañ ko tuddee ngir le fait que baayam newoon fi di alaaji ñu ko kebe di jàmbaar ci yoonu murit euh, amoon fi taxawaay bu rëy rëy jóge fi moom rekk mu jug relevé de défi bi nga xam ne baayam Euh, yoroon na ko fépp foo xam ne baayam doon na fa taxaw def fukk ci yoon wi mu jéem faa taxaw def benn te li tax ñu war koo jàngal génération future nag mooy jigéen la jigéen bu yàlla dénk serangay euh, àdduna waaye nag doo taal benn soirée ba gis ko ci wala lenn loo xam ne ay caaxaan la jéegoom yépp mi ngi ko jëmee ci yoonu Sëñ Tuubaa ñu wane na kat kii nag war naa mën a nekk modèle ci génération future na leen soxna si kat bu ngeen ko royee man ngeen a baax bi loolu jàllee tamit sëriñ xaadim sali yéen ñëpp xam ngeen ko fii muy sunu mbokk du sunu jur waaye moom it li tax ñu war koo li tax ñu war koo jàngal génération future mooy bi mu ñëw fii fekk suuf yu bàyyi fekk suuf fi yaay te tey jii nga mën a taxaw sali ñu la moo fi def jumaa ji man laa wax ne la moo fi def fajukaay bi man laa wax ne moo fi def dero daara bi kon loolu war nañoo jàngal génération future ne nit li tubaab di wax mën ngaa jóge ci zéro ba egg au sommet kon loolu moo tax moom it ñu fas ko yéene sargal ci bis bi waaye tamit ñëpp ñi nga xam ne ba nu yëkkatee 4 avril ba tey dañu suñu suñuy kilifa waaye dinu nu encouragé di ci ci ci ay xalaat dinu nu ci ay présence di ñu ci jëf ci seen alal dafa bokk ci ñooñu kon nag jaadu na nag ñu sargal ko ci bés bi loolu moo taxoon ñu ne moom it moom la def invité d'honneur thème bi euh, fii toll fii réew mi toll ci tension politique bi dañoo jàpp ne euh, Serigne Touba modèle la ci non violence ñu fas yéene jël thème boobu traité ko Serigne Touba mi nga xam ne moo moom la ay ay noonam jëlee fii yóbbu ko teg ko fitna yi man yëpp mënuluñ ko dara mu dellu si am ndam ci ñoom. suñ borom ne loo bëgg ma def jëflante ko ak sa noon yi mu ne afaw anil aada yu turan kon kooku modèle la ci non violence kon nag sëriñ bi la ñu fas yéenee euh, waxtaanee ci bis bi maanaam taxawaay bi mu amoon ci jàmm ndax kenn ko ne xam ne ne réew mi fi mu toll nii maa ngi profité sax ci occasion bi di ñaan njiital réew mi fii réew mi toll ci xiif ak fii réew mi toll ci coona ak jaaxle arrestation yu bari na trop. te yàlla daf ko dénk doole ju bari te doole ji du pour population bi ay pour mu aar réew mi la te dafa mel ne doole ji ñu ngi koy jëmale ci population bi nga xam ne dañoo sonn ci xiif sonn ci location bu seer sonn ci mar sonn ci njëkk yu seer kenn mënatu laat njëg yi ñooñu boo ci dollee nag ay arrestation arbitraire di am kooku dafay gën a yokk ak noonoom ak population bi te kenn ku ne xam na ne nit ñi mer nañ war nañ ko ginnaaw réconciliation bi nag li koy waral mooy na jéem a apaiser apaiser rek mooy mën a tax nit ñi waraat ko ginnaaw parce que képp koo jël tëj ko dana la mere ay mbokkam bala loolu bu yàggee dafay bari te gis nañ ne euh, nguuram gi euh, arrestation yi bari na nañu nañ maa ngi ci maa ngi profité ci occasion bi di wax suñu mbokk suñu Assane Mbacke mi nga xam ne mi ngi ci kaso bi nañ ko teggi loxo ndax foofu du palaasam ndax rëyut nit deful lu ñaaw yaakaar naa ne manifestation la woon te boobu ma nga fa màggale kasu rajab ba tey ji mi ci biir kasu bi kon nag ñoo ngi ñaan état na teggi loxo ci détenu politique yooyu te doxal yërmande euh, le soir du 4 avril euh, Sénégal dafay feete indépendance te sëriñ bi sëriñ bi euh, am rôle bu rëy bu mu joué ci li libéré der bu ñuul loolu moo tax ndax jàngale na ca masaalikul jinaan di décomplexé taalibe yi ci wax leen ne bu leen xeeb xeeb seen bopp ndax seen der bu ñuul ndax ngeneelu suñu borom kat mën naa nekk ci mën naa bàyyi koo fu ne kon ñun jàpp nañ ne daal lii ñuy def nii sax ñun dañoo jàpp ne suñu autorité étatique yi ñooñ ci waroon a jiitu parce que amuñu lu gën a rëy suñ Tuubaa comme ni ma ko waxee léegi damaa jàpp ne fu euh, Inde mën a taxawee ne gàndi ñu war a mën a taxaw ne si Ahmad Bamba fu Amérique ma war a taxawee na Martin Luther King ñu war a mën a taxaw ne si Ahmad Bamba fu ah, euh, fu kii taxawee ne Nelson Mandela ñu war a mën a taxaw ne si Ahmad Bamba te sax ñun suñu li ñu gën a jaaxal mooy suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi ñoom ñoo ñu leen joxe comme exemple te mu jàpp ma ne nag ñun am nañ ci réew mi li ëpp Sëñ Tuubaa waaw Sëñ Tuubaa daal dama jàpp ne dañ ko war a jox gëddaam jox ko wàccuwaayam jox ko cëram ba tax ñi ci biti man koo fonk waaye bu fekkee cër bi ñu ko war a jox fii ci biir réewam joxuñ ko kon nag au niveau de international yaakaar naa ne cër bi ñu ko war a jox duñ ko jox fi réew mi toll dama ko dama dama ko dama ko juñu léegi jàpp naa ne bu nu ñi jiite bu nu xoolee ci sëriñ bi ci bi mu jekkoo ay noonam lam wax mooy jéggal naa samay noon ak bam bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko jaayee doole ne ko di ko teg loxo mu mu mu bañ loola waaye nag euh, pacifiquement kon damaa jàpp ne kooku modèle la ci nag fii réew mi toll ñu waxtaane Serigne Touba waxtaane ba mu tollee fii fii nga xam ne ay acharnement hmm, ñu koy diaboliser yooyu yëpp amoon na Serigne bi nam taxawoon jàpp naa ne bu nu ko jàngalee ni ñu ko war a jàngalee ñu traité thème bi normal mm-hmm. yaakaar naa ne euh, loolu dina nekk saafara waaye nag. ndaw ñi fii ñu jëm nii moom euh, dana jafe lool dana jafe lool ñu wàññi ko ndax dañoo sonn réew mi liggéey bi amul ndaw ñi xiif nañ mar nañ sonn nañ ñooñu nag li ma jàpp ne moo mën a moo mën a apaiser seen seen seen ki apaisement réew mi daal jàpp naa ne jiitu na dara jiituwu ci njiital réew mi renoncé ci troisième mandat tayit arrestation arbitraire yeeg acharnement politique yi ci ñi nga xam ne ay potentiel adversaire leen lool it mu teg ko ci suuf bu dul loolu moom kenn kenn mënta fexe ba duñ jëm ci ay confrontation ma day taali yoo xam ne gënut ci réew mi programme bi dafa nekk daan nekk journée entière waaye dañoo nekk ci période koor muy ñu koy def ci euh, biir koor gi euh, ba tax na pour maîtriser programme bi munu xëyee euh, danañ jàng alquran à partir de treize heures ba dix-huit heures ñu joxe ndog yi am na ay barab yoo xam ne bàyyil nañu ko gan ñi guddi nag ci salle de conférence Brioche Dorée bi foofu la ñuy defee conférence bi euh, sëñ Gana Messere moom moo koy def bu ko defee ñoo ngi ci jox rendiwu euh, képp koo xam ne sénégalais nga te bokk ak ñun pas-pas bi mooy gëm ne sëriñ bi am na cër ci feetu indépendance ñoo ngi la ciy jox dig daje di la ci di la ci woo di ci woo presse bi yëpp nag.